leen ziyaare di leen seereel itam di leen seereel itam sunu cant rek sunu cant rek ngir sunu borom sant sant sunu borom sant nu boole mi nu booleeg sëriñ bi di sëriñ bi nga xam ne itam mooy sunu lépp tey ëllëg <coughs> di sant bokk yëpp. di sant bokk yëpp. tàmbalee ko si bokk yi bi. di sant bokk yëpp te tàmbalee ko ci bokk yi ñu bokkal sëriñ bi. ñuy tudd di tudd sëriñ bi. sant bokk mboolem bokk yi yëpp. sant mboolem bokk yëpp. sant mboolem bokki taalibe yi yëpp. sant nag ñi nga xam ne ñoo bis bi ñi nga xam ne ci xam-xam lañuy yëngu kon cant googu moo waraloon bis bi ba tax ba tax muy am bis boo xam ni bu ñëwee dañ cay feeñal sunu bëgg xam-xam niñ koy feeñalee mooy teral boroom xam-xam yi kañ leen itam ci seen yëngutu yëpp loolu mooy cosaanal bis bi li nga xam ne moo waral lépp nag mooy nun sëriñ bi rekk lañu bëgg muy tey jii muy ëllëg jiñ jëm ngërëmam dong itam lañuy wut nu bëgg nag nu tàmbalee ko fañ ko war a tàmbalee muy gën a fonk xam-xam gën a yittewoo xam-xam. gën cee jóg itam. gën gën jóg itam kem sunu kattan. jubluwuñ ci dara. jubluwuñ ci dara. ngir liggéeyub sëriñ bu rëy bii mu fi bàyyi. moom am na lim bëgg ba noppi. bëgg ba noppi. sama borom mu fi mu fi nekkal. moo ko fi nekkal. te lu mat a fàggu fàggu na ko. waaye nun nag. waaye nun nag. gannaaw ay doomu aadama lanu. gannaaw ay war na noo xam sunu warteef. war na noo xam sunu warteef. war na noo xamit li nu war ci sëriñ bi. war na noo xamit li nu war ci sëriñ bi. mooy téyel ko liggéey. li nu war ci sëriñ bi mooy téyel ko liggéeyam bii. téyel ko ko. téyel ko ko. sunu kem kattan sàmmal ko ko itam sàmmal ko ko itam. sunu kem kattan loolu nag. loolu nag. xëy na liggéey bi sax yaatu na. xëy na liggéey bi sax yaatu na. waaye xam-xam moo ci jiitu. nag xam moo ci jiitu. te sëriñ bi. baat bi ma bëgg a wax sax ci man. ne baat bi mu bëgg a wax sax dafa tuuti ci moom. mooy sëriñ bi dara jomb ko. ci lu baax tey ak ëllëg. liggéey na fi liggéey bu rëy. liggéey na fi liggéey bu rëy. bàyyi ko fi bàyyi fi. bàyyil nu ko fi. bàyyil ko fi. kon la doon war a doon suñu jom. kon la doon war a doon suñu jom. liggéeyam bii. liggéeyam bii. bu mu laal suuf laal suuf. ci li ñu jëm li li li li li ci sunu kanam lépp. ci li ci sunu kanam lépp. ñu baax ñi nu ci jiitoo ñi nu jiitoo ñi nu jiitoon ci liggéey bi. ñu baax ñi nu jiitu woon ci liggéey bi. def nañ lay seen seen kem kattan. def nañ lay seen seen kem kattan. sàmmal ko yoon wi. sàmmal ko yoon wi. muy sàmmal ko njaboot gi. muy sàmmal ko njaboot gi. def nañ ci seen kem kattan. def nañ ci seen kem kattan. waaye. mbir mbirum sëñ bi. waaye. mbir mu nekk. waaye mbir mu nekk. dafay war dafa war di jëm kanam. ci wàllu xam-xam. ci wàllu xam-xam. ak wàllu yitte. ak wàllu yitte. danoo am lu nu jàppoon ci li weesu. danoo am lu nu jàppoon ci li weesu. rëtaange rëtaange gi nu rët ci mbirum sëriñ bi. rëtaange gi nga gi nu rëtoon ci mbirum sëriñ bi. barkeb sëriñ bi bi ak barkeb sëriñ bi nu gàttandu. loolu daf noo doyoon sëkk. loolu daf noo doyoon sëkk. doy loolu it doy na itam. waaye nag bu ñu bëggee jox sëriñ bi àqam. waaye nag bu ñu bëggee jox sëriñ bi àqam. liggéey liggéey boppam bii. mu bàyyil ñu ko fi. mu bàyyil ñu ko fi. nañ ko ko nañ ko seet nañ ko ko gën a mën a sàmmale. gën koo téye. gën koo téye. ba li ci war. ba li ci war. ndax bàyyi gi nu fi bàyyi. ndax bàyyi gi nu fi bàyyi. ñu def ci ñu wëlbatiku nag. ñu wëlbatiku nag. xam ne nag luy jot jot na. xam ne nag luy jot jot na. ci wàllu xam-xam ci wàllu xam-xam ci wàllu yitte mbir mu rëy mu mën a doon mbir mu rëy mu mën a doon mënut a ñàkk yaar yooyu ndax yaar yooyu ñoo koy sàmm ndax ñaar yooyu moo koy sàmm kon lay lay lay suñu wàrteef kon lay suñu wàrteef war a doon suñu jom war a doon suñu jom mu jóg nag mu jóg xam ne li nu weesu. xam ne li nu weesu. doxinu mandité rek lañ ci doon dox. doxinu mandité rek lañ ci doon dox. mandi gi nu bi mandi. ngir barkeel bu bii. wàcc si moom wàcc wàcc ci moom. ñun nu bokk ko. ñun ñëpp nu mel ne li nu weesu. la loolu dafa mel ne li nu weesu. te te lu woon dara. te lu woon dara. ci sant sëriñ bi rek. ci sant sëriñ bi rek. jëf di jëriñoo suñu barke. di jëriñoo suñu barke rek. loolu. loolu. moom la ñu wees. loolu moom la ñu wees. war nañoo luy jot nag jot na. luy jot nag jot na. loolu moo di lan. loolu moo di lan. liggéeyam bu rëy bii. liggéeyam bu rëy bii. mu mu mu mu wëlbatikuwaat nag. mu wëlbatikuwaat nag. gën a jublu yàlla. gën a jublu yàlla. gën a song nag xam gën a song nag xam-xam. def ci suñu itte jëpp. def ci suñu itte jëpp. gën a yokk nag suñu itte. gën a yokk nag suñu itte. xëy xëy na nag ñun sant nañ ba noppi ndax sëriñ bi rek lañ dund seen dund te sëriñ te sëriñ bi fàggul nañu lépp li des rek moo di gën a xam nuñ koy sàmmalee liggéeyam bi gën a xam nuñ koy sàmmalee liggéeyam bi nuñ ko koy gën a mën a yorale loolu nag ci jublu yàlla rek la mën a ci sotee ci jóg ci xam-xam rek ci jóg moo ci war moo ci war def ci suñu ite jëpp def ndax xam-xam moom ndax xam-xam moom mbir mën a doon mbir mu lu mu réy réy ak lu mu réy xam-xam rek ko mën a xam te xam-xam itam. te xam-xam itam. ci itte rek lay mën a bàyyi ko. ci rek lay mën loolu rek laa ci moo taxoon may ma ma ma sant sant sant sant sant borom xam-xam yi ñi xam ne xam ma xam-xam ñi nga xam ne seen itte. mu ci xam-xam rek luy yëg loolu rek nag moo waral bis di leen sant leen kañ rek loolu nag ci laa nekk ba léegi. ñun ñëpp ni ñu bokkee sëriñ. bokkee ko lislaam. bokkee ko lislaam. jóg nag ci itte ju rëy ju mat. ci jóg ci xam-xam. gën koo fonk gën koo fonk gën koo gën koo jox suñu ittee gën koo jox suñu ittee suñu taxawaay boobu suñu taxawaay boobu ñu taxaw ko ñu taxaw ko ngir njaboot gi ñëw ëllëg ngir njaboot gi ñëw ëllëg ñu xam ñu xam ñu xam la ñuy sàmmee mën a doon. lu la ko sos. la ko sos. mën a wéer. la ko sos moom rek ko mën a wéer. moom rek mën a rek moom rek ko moom rek ko mën a dolli. moom rek ko mën a dolli. kon daal ñun ñu nañu nañu nañu nañu bopp. du dal nañu soññ suñu bopp. gën a gën a gën a gën a jëm ci sëriñ bi. gën a jëm ci sëriñ bi. nun nun gën a jëm ci sëriñ bi rek. itte jooju di gën di jooju di gën a ci ñun. partie bu ñu war a jóg ci xam-xam. warte bu ñu war a jóg ci xam-xam. a yëg kon noonu rek la dem. nan góorgóorlu bu bu baax. ñaari ñaari ñaari ñii fi nekk. ñaari ñii rek fi nekk. gone yi jóg. yi door a jóg. nan jóg jóg ci ñoom. gën a jóg ci ñoom. gën leen a taxawu. gën leen a taxawu. gën leen a dimbali. gën leen jëmee leen nag ci xam-xam. dëgg la xam-xam bu ñu tax waaye dañuy am yaakaar ci ne. waaye dañuy am yaakaar bu xam-xam amee. gindiku mën naa yomb. naa yomb. kon nu góorgóorlu bu baax. kon nañ góorgóorlu bu baax. ci njaboot bi li ci suñu lépp nag. kenn ku ci nun njaboot gëmu tiim. njaboot na xam ne. la mu bëgg ci njaboot bi. la mu bëgg ci njaboot bi. la sëriñ bëgg ci njaboot ga. taxaw ko dong. ci yar. ci ak xam-xam tegu ba mu gën a mën a teel tegu ci yoonu jub loolu mooy suñu wàtteef nañ ci góorgóorlu bu baax a baax gone yi ñoom alhamdulilahi rabbil alamin gone mel na ni li ci ëpp noo bëgg ni mel ni rek mën na ne mel waaye tolluwaay bii nga xam ne moom lañ toll mel na ni sëriñ bi feeñ na ci gone yi. mel na ni sëriñ bi nag feeñ na ci gone yi. ndax gone yi am nañ lu ñu yëg. ndax gone yi am nañ lu ñu yëg. yëg gi weesuwul nag sëriñ bi rek. yëg gi nag weesuwul sëriñ bi rek. kon nag lii tax ñu gën a xam sëriñ bi. kon nag lii tax ñu gën a xam sëriñ bi. gën koo mën a sàmmal liggéeyam. gën koo mën a sàmmal liggéeyam bii. gën koo nag eh, gën koo mën a sant. gën koo mën a sant. ndax dañuy gën a xam li mu defal rek. ndax dañuy gën a xam li mu defal rek. buñ ko bëggee liggéey nañ ko bëggee. kon buñ ko bëggee liggéey niñ ko niñ ko bëggee. muy ko liggéey bi. mooy sàmmal ko liggéey bi. dañuy dañuy dañ dañ dañ dañ jublu gépp dañ koy jublu. suñ yàlla moom. ndax jublu yàlla moom. ci la lépp nekk. ci la lépp te jublu sëriñ bi. mooy jëmmi yàlla. amul jëriñ jublu ndax sëriñ bi amul jëriñ jublu ku dul yàlla. ak yonent bi nga xam ne moo ko moo ko jox ndigal. ak yonent bi nga xamante ne moo ko jox ndigal. amul lenn lu mu boole ci boppam. amul wala mu di ko tal. wala mu di ko tal. waxuma waxuma laa xemmem. léppam sunu borom la ko jox. ak fonk ndigal li ko jox yéen. ak fonk ndigal li mu ko jox ci yéen bi. sallallahu alayhi wa sallam. sëñ bi sëñ bi foofu rek la nekk. sëñ bi foofu rek la nekk. kon li ñu gis ci sëñ bi. ko ñu dégg ko. suñuy nopp. xam ko it xel. lu néew la ci lu néew la ci xam sëñ kon nag li am solo rek. nan jéem a jublu sëriñ bi. fas yéene koo téye liggéeyam bii. fas yéene koo téye liggéeyam bii. fas yéene koo sàmmal. fas yéene loolu mooy tax. loolu mooy tax. diggante ak moom. cant rek ci rek ci wax. loolu nag mooy tax. loolu nag nu man koo sant nan ko war a sant. toppee ko dañ ko war a toppee. kon. loolu. mën a amee yaakaar. ci lañ mën a gën a amee yaakaar. danañ mën a am ngërëmoo. buñ amee ngërëmoo. am yàlla. am yàlla am ngërëmal yàlla. te buñ amee ngërëmal am ngërëmal yàlla. te buñ amee ngërëmam am ngërëmal yàlla. àjjana taxul ñuy wax. kon nañu góorgóorlu sëriñ bi rek. kon nañu góorgóorlu sëriñ bi rek. nekkal ko ci li mu bëgg. suñu kër yu baax yépp la. waaye na na ci xam-xam jiitu. ndax mooy tax ñu xam anam yu baax yépp. fonk suñu diine. liggéey la ko. mooy fonk suñu taalibe nag. mooy fonk suñu taalibe ak moom. suñu lépp. suñu lépp. mën nañ koo jeexal bi. te duñ jege jot ak xam noonu rek la demee Cheikh Abdoul Ahad ne waxante naa moom fii ci ay kaddu bibliothèque bii tey bi mu noppee ñu indi fa machine yi te dara nekk gu fa dafa am tawfeex nee na mu woo ko mu jigéen jaarem néew fekk si ko fekk muy bëgg a jóg lim yoroon mi ko ko jox mu teel ko ko ñëw foofu ci bibliothèque bi ne bi muy dugg moo ko waaye ne bi mu duggee nag sama xel am lu dem ci ngërëm lu ma gërëm moom sëñ Abdoulaye ak kañ gu ko bëgg a kañ ne mu ñëw bu jub ko mu ne ko man de dama am lu ma jàppoon. waaye bàyyi naa mu dégg ko daal damay geesu ne ma lan la mu ne ma ne ko dafa am lu ma jàppoon waaye génn naa ci ne man damaa defoo di Cheikh Fall képp a jox Sëriñ Tuubaa ak xam mu ne ma ah, ah. boo ko bon posté bi taalibe yëpp dajale ko ba mu daje nga teg ko ci balaas lu tax ñu jox sëñ bi am taalif yi te ba sëñ taalif yëpp boo ko dajee boo ñu dajee lu tax ñu jox sëñ Tuubaa ak waaye mu ne wax ji nag dafa mel ni Cheikh dama tontu ne dama faa jógee ñëw njaareem rek nee na yaakaar na ne ci bis wala ca suba sala gama gaaw fàtte ne damaa jógee ci kër alaaji Seex Mba Mbay julli ji ci jàkk ji tisbaar bi ma ñëwee nag ma fekk fa sëñ Mbàkke Faajama jiituma ko fekk may egsi rek mu mel ni dafa nekk ci àll àll ji mi ngi ko jëme woon ci Muntaxa Géey nii di jàngful ko di ko jéem aw njàngeen waaye ñu nee na loolu lépp nag mu ne waaye dafa am benn koo xam ne daf doon laaj Cheikh Ibra Fall yow daal yow daal yow képp yaa xam sëñ bi Cheikh Ibra ne ko ah, waaw xam naa ko de ne ko waaw xam naa waaye maa ngi mel ni bët bu dal ci guy la mu dal rek la xam kooku kooku tontu na nee na kooku tontu na man mi doon xalaat li ma wax seen daal ne ko li ma xam lu ma jàppoon waaye gën naa ci na moo xam moo tax seen topp ko rek loolee rek mooy la seen wax ko rek kon mbir bu sëñ Bago nee maa ngi jégalu waaye wax ji suñu waxtaanu biir rek lu mën a xew daal nañ góorgóorlu ci xam-xam jóg ci njaboot gi def ci suñu ittee def ci suñu kem kattan fa yéene koo liggéey la sëñ njaboot googu bu ñu jógee ñun ñëpp jàng bii nga xam ne sëriñ naalu sëriñ bii nga xam ne naalu sëriñ bee moom mu ne dañoo am tawféex yi bëgg ko cee nekkal Abdoulahat moo ko moo ko moo ko moo ko tàmbali. ndax bàyyi ginnaaw bi nu am taw féexi. fas yéene naalu sa yëpp daal boobu yi moo fas yéene war ci Tuubaa nu nekkal ko ci. kon kon. man ni ma ko xalaatee. man boobu ni ñu ko xalaatee bu fekkee amee na bu fekkee. jàngale ak jàngukaay yëpp jóg jàngalekaayu alxuraan yi jóg di jàngale nañ doon jàngale ba daal di si foog gën a fonk seenum jàngale ndax ndax daara ji moom ab escalier la rek buy yéeg jëm ci xam-xam rek adduna jëpp nag di ko jóg ko seen waa ko seen fii Tuuba loolu yi la daara ji jëriñ mu dolli ko nag ñi jàngale ci daara yi. jàngale ci daara yi yokk seen itte nekk ca lañ nekkoon majaalis yi nekk ca lañ nekkoon. mu ànd ak daara ji mu ànd ak daara ji nag dem. yaakaar nee na waxoon na ne bu ñu amee ñetti téeméeri at. bu tegee ci yoon wi. fas yéene dellu si lépp suñ tuwaa. jublu ko ndax mooy jublu yàlla. jublu yàlla ku ko def. yàllaa la yore sa lépp. ku yem ci sëñ Tuba rawatina nag ku yem ci sëñ Tuba jublu sëñ Tuba loolu rek la demee nan góorgóorlu bu baax bañ a sàggal rek coow li coow li sàggante gune sàggantuñ ko manite moom muy wax ak yooyu yëpp ay càggante rek la dafa neex rek bañ a def dara dafa yomb nanu jóg nanu jóg jublu nag sëñ bi jéem ko jox akam te gën koo mën a sant nag nekkal ko ci liggéeyam bii gën ko koo mën a sàmmal suñu kem kàttan maa ngi jégalu nañ ma jégal rek nañ ma jégal rek bëgg rek la lii ma bëgg di ma bëgg lépp laa ko yéen ñëpp laa ko yéen loolu rek la wax ji wax ji <laughs> jégal bu baax a baax nun nee na mën waxtaan lu ma neex mu nag waaye lii mooy dëgg ci man waaye nag dama ko yéene ñëpp la. mu ne bu ma sañoon do waa ko sëñ Tuubaa gépp dañu nekk ci benn mbedd mu fëx topp ci seen gannaaw topp ci seen gannaaw di leen jël loolu la la. jërëjëf Mbacke. amiin jërëjëf jërëjëf Mbacke. yàlla gi lool Mbacke. wax leen amiin.